jërë ngeen jëf ñu ànd demandoo ci li gën a fës ca ëttu yëglekaay yi su du quotidien lañ ko doore fësal ca xëtta mu njëkk président Macky Sall ak président journal ba di xam le ñoom ñaari njiitu réew yi amal na ndaje bu njëkk ca palais de la république bu Sénégal waxtaane ëllëgu politique bu Sénégal ginnaaw élection présidentielle mars moom son excellence Bassirou Diomaye Faye askanu Sénégal wul ko tab ko def ko cinquième président de la république bu ni ca la ne amal li ñu duppee passation de service moom jiitu réew bu Sénégal fas yéene soobu ci liggéey bi fas yéene dëgmal li nga xam ni askanu Sénégal ñi ngi koy xaar ci moom yoor yoor ma ngi ko duppee Macky balise le terrain à di xam ni jamono ji nag lépp yem na président Sall ubbil na buntu palais moom mi di Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu ko recevoir wax ko mbir ma ni demee ak ana naka lay doxee ñu waxtaane dossier yu bëree bëri jëm

ñaar ñi di Bassirou Diomaye Faye di président bu Sénégal ak Ousmane Sonko bu ñu agsee nag ca palais de la République bu Sénégal ña nga dooree seen i kàddu nuyoo ak moom le chef de l'État du président Sall jàmm sant ak moom ña ngi ko daan ko naka yaram wi mbaa ngi am jàmm mbaa ngi am tawféex président Sall tontu leen bu baax a baax nag ñu leen maa ngi sant bu baax a baax ñu toog waxtaan diir bu yàgg-yàgg jëm ci wàllum politique ginnaaw loolu la République ñu découvrir daanaka bërëb ya fa nekk yëpp minal leen moom mi di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bés bi le jour ma nga naan ñu Ousmane koy dafa meloon ni tàkk ndeeru Bassirou Diomaye Faye nag ca palais de la république maanaam nekk mentoram dëgg nekk ci ginnaawam jiite ko mu ca pare de service bu am solo ni ki le 2 avril 2024 bi ñu dëgmal ca diwaanu Diamniadio laataa ñu sóobu nag ci liggéey bu am solo bi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy xaar ci ñoom ginnaaw bañ leen wóoloo ni ki bi passé tabale ci bopp réew bu Sénégal ñu fas yéene jiite leng yi ni ki juróomi at yi nga xam ne dëgmal nañ ko jëm ci wàllum politique ci jiitalal son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye chef suprême des armées ni de la constitution ñu koy woowee tamit le père de la naan ñu ni ki le bi ñu dëgmal kay ci moom son excellence monsieur Bassirou Diomaye président bu république bu Sénégal gannaaw bu nga xamee ni président Sall yëkkati na lëngë réew mi jagleel ko ko ko fële ca diwaanu Diamniadio ñu duppee ko passation de service mu fas yéene doorub liggéeyam nag dëgtal programme askanu Sénégal xool ana nees la mën a def ngir suqali dëkk bii Sénégal génne askan également ci jafe-jafe yu méttee métti nga xam ni ñu koy jànkonteel guddeeg bëccëg léegi ko fësal ca xëtamu njëkk waa Benno Bokk Yaakaar journal ba di xam le ni ginnaaw seenu defee ci élection présidentielle du 24 mars 2024 jafe-jafe yéen di retrouver seen i base kenn ku ci nekk a taxawaay bu am jëm ci ëllëgu politique bu Sénégal président Sall di sàkku ay ñoñam ak i àndandoom ñam bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am taxawaay bu am solo nekk de véritable opposant nag taxaw jëreedu opposition fii ci Sénégal ginnaaw yi nga xam ni jiite nañ ko réew mi nekk tey ji bul ba daal di tourné waaye Diomaye 2024 fas yéenee jiite cinq yi nga xam ni dëgmal nañ ko waral président Sall yëkkati a dëgër opposition politique bu Sénégal ama ci taxawaay bu am solo ngir élection yi nga xam ne dëgmal nañ ko ñu mën ta am résultat yu nga xam ni kenn dootu ko naatable benn yoon na ko coow guddi coow bëccëg langu boppam moom Amadou Ba loolu lépp nekk interrogation yu nga xam ni ñu ngi koy samp ci biir Benno Bokk Yaakaar jamono ji ginnaaw defet bi nga xam ne jël nañ ko ci élection présidentielle yu mars 2024 moom tamit jafe-jafe waa coalition Benno Bokk Yaakaar la fësal ca xëtam mu njëkk di ko firndeele kàddu président de la république Macky ma nga naa leen wét gore wétaliku gore ba tax na la muy ci ñoom du leen dudul kenn bañ a te dem di bokk ci gouvernement président Bassirou Diomaye Faye ñu taxawal taxawaay bu mucc ayib jëm ci politique bi bu ko defee nag élection yi nga xam ni dëgmal nañ ko ñoom waa benn bokk yaakaar mën ta amal taxawaay bu am solo mën a jéem a gañawaat réew mi continuer jiite ni at yi nga xam ni dëgmal nañ ko su du côté jéem a nga àddu jëmale ci scandale yu bari bari yi nga xam ni état président Sall bàyyi nañ ko fi ginnaaw douze ans ban jiitee askanu Sénégal doore ko ci lii mille Covid scandale Prodac Petrotim ba tax na journal ba juróom fukki milliards ci suñu koppar lañ ca dugal ci rénover building boobu maanaam defaraat ko jekk-jekkalaat ko mu nekk scandale boo xam ne journal baa nga xam le ni ñu ngi xaar bu baax a baax nag ci état wu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye du président bu Sénégal mu indi ci ay leeral yu wérte wóor wax ana koppar googu ana nees lañ def ba dugal ko ci building administratif ba nga xam ni daanaka defaraat bu ndaw a ndaw rek moom lañ ca jot a def xaymaa ko lu toll ci cinquante milliards de francs xam ni gouvernement président Sall ko fi la addu jëmale mu mu njëkk dëkk jëmm ji ñuy woowee Nicolas samb di fereeru Kabiline Diatta ñu jàppoon ko fii ci Sénégal jëm ci wàllum terrorisme ak lu ni mel ci événement yi xam ne passé na fii jëm ci wàllum manifestation moom Nicolas Sambou yëkkati kàddoom di xam le ni fekk nañ leen ci kaso bi nag dig leen àdduna ak la ci biir ay personnalité politique yu Sénégal amal ko dig leen koppar gu takkoo takku cent millions de francs CFA ak passeport diplomatique ngir ñu takkal leader politique bii di Ousmane Sonko jiñ ko wàllum tamit moom moo leen jox ay bomb ñu teg ci Ndakaaru ak lu wante jëmm ji de xam ne ni nag dañoo lànk lu ni mel moom ak frère bañ na du ci dal benn yoon ndax ci dëgg-dëgg mosuñoo gis benn yoon leader politique bii di Ousmane Sonko mosu leen a dicté dara également wala ñu bañ loolu lépp nga xam ne ay privilèges am solo la ñu dégteel leen ko ngir ñu takkal leader politique bii di Ousmane Sonko jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm ba suba incha allah. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.